allo test test allo Dakar. waaw ok euh, léegi bi euh, eh, mais mais duma jaar ci tu de parce que damaa am ay ay ay bokk yoo xam ni ñooñu lañ ñooñu mais bu ma waxee rek ñoom ñoom dinañ comprendre léegi bi euh, kenn ci ñooñu noonu dafa demoon kiiwi ji dafa demoon ci ay jàng naka mu génnee këram di dem jàng yi génn taxaw tak ah dox ba ci car rapide bi dugg toog ampranti bi laajte pass ba yexi si ci mom laaj ko pass mu lamb daju dara emprunté bi ni ko abo mu ne ko wa mu ne ko kay mu ñew mu yegal ko ci porte bagage bi wo ñetti wax waxambaane ak mom muy kaat ñu yéeg ci kaw fekk ko fa mom ndaw si de ñok ñok waxambaane yi ñoom ak waxambaane yi ñom ñoom ak waxambaane yi ak waxambaane yi ba ndaw si décourager ba ñu wacce ko mu dem ca ca ca jang ya dem soulager ci jàng yi xamul ca la muy def dara nag ci jàng yi dem ci jàng yi pare ñibbi at yi di dem ba ca ca déwén nga jàng yi annuel la war a amat <coughs> ndaw si di préparé dugg ci duus bi di sangu am na jëkkër de te loo ci xamul am na jëkkër dugg ci duus bi di sangu taxaw jël pot bi def ci ndox sotteeku ba mu ko sottee bopp bi tooy ndox mi di wàcc kanam gi tooy di tooy di wàcc ba ci yàgg mu wàcc am fu mu laal xel mi dem ca ca ca jàngi daaw ya xel mi ni yar ci jàngi daaw mu sëgg sëgg rek kii eh, eh, dóor ko ni ko cey la nga daj ca jàngi daaw ya tombeeg jëkkër ji di romb jëkkër ji ni ko du ko daj ci gu ren gi de ndax doo dem <laughs>